yéen ñi di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës ci kolos bi ngir man di jot suñuy notification te bu leen fàttee zem tey partager suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural wasalaatu wasalaam سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الرضوان والتمكين يطيب الفؤاد زور البيت مع المدينة خبل الفوت يا ربي زور البيت والبنيدة زيارة عن الرياء مصونة كل زمان لا أزال أطلب لقاءه وأرتجي وأرغب wa kullu xadamani aw zaara fa najjihi wax lahu aw zaara mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di ñaan cheikh mouhamadul muntaxa suñu borom dolli ko fee yàggal tamaan ak wér di jiital ci nuyoo boobu ak ziar bi jëwrinu mbooloo mi sëriñ Boubacar Diop ñu ngi koy nuyu baax te di ko ziar di ko ndokkeel ci liggéey bi tey ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu dellu ko sàmmal te fayal ñu ko di nuyu suñu wayjur yi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo seq liggéey bi di nuyu mbokki góor yàlla yi ak soxna yi mu mel ni ci ndigalu jëwrin dañoo fas yéene euh, door liggéey bu mag bii nga xam ni moom lañu lañ bu tey tudde ko waajtaayu ziar mu mel ni programme bi niñ ko tëralee mooy ku ne xam na ni mbooloo mi lépp lu muy def alxuraanul karim lay jiital ba tax na jàng nañ fi ñeenti kaamil ñaari yi ñu addi ko soxna jaara yeneen ñaar yi ñu addiyal ko maam Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw njàngum xasida mi nag dañoo fas yéene tàbbi ci waxtaane lenn ci dunduk soxna jaara mu mel ni day wuutu ngont mi nga xam ni dañ koo jàppaloon suñu wayjur yi ne ci daayira àllarba bi su ko defee ñu dëxëñ ko ci wàccaayu ziar bi tey waxtaan woow na kiñ koy defal mooy soxna Fall ba ñëpp xam ko ci yar ak jàngale mu amaat beneen jotaay boo xam ni day wuutu guddig maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ni moom it dañ koo jàppoon ngir waajal ko ziar bi ñu doxañaale ko ci bisu tey bi moom it dina am ku ñu lenn ci ak dundam muy sëriñ Baye Ousmane moom it di yëngu ci wàllu jàngale ak yar su noppee ñu dugal assemblée générale maanaam commission bu ci nekk dina ñëw fii wax nan la fas yéenee liggéeyee ci ziar bii ñu dëgmal muy suñu ñaar fukkeelu ziar ak juróom-ñaar dëppoog juróom-ñetti fan ci weeru janvier at mai ñu dëgmal muy 2023. su noppee dinañ amal kuréelu xasida su noppee dinañ fi amal zikrullahi muy zikar suñu noppee nag kàddu gu mujj gi jërinu mbooloo mi moo koy jël. ñaax mbooloo mi fàttali leen kon bu ci suñu borom subhanahu wa taala àndee programme bi nii la jëwriñ joxe ndigal ngir ñu doxale ko kon rek dañuy woy ci liggéey bi ñuy jox soxna Fall ba ñaan suñu borom mu feccil ko aw làmmiñam ba lim yéenee génne ci dunduk soxna jaara gu barkeel googu mu mën ko génne te suñu borom tawféexal ñuy liñ ciy taataane ñu mën ko jariñoo kon soxna bisimilah. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalina sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin assalaamu aleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen jéggul bu baax ci kàddu yi nga xam ni ñu ngi koy yëkkati suñu waxtaanu tey ñu ngi ko fas yéenee def ci boroom dund gu sell muy saydatu jaaratu buso xayaatuha wasiratuha mooy gane gi nga xam ni gane na ko àddina ak aw askanam ak njàngale mi nga xamante ni bàyyi na ko fi kon dañuy jéemal leeral tuuti rekk ci ak dundam ndax dundam dafa bokk ci li nga xamante ni ñooñ diine dañ koo limaale ak dundam dañ koo limaale ci diine boole ko ci muy lima boole nañ ko ci ñu way ragal yàlla yi boole ko ci ñi nga xamante ni ñu fegu lañu woon waaye boole ko ci nga xam ni ñu doylu lañu woon waaye ñoo xamante ni dañ daan yar seen njaboot ci jaamu yàlla ak topp yàlla sunu boroom akuk sàmm taxawal dinaa fi la ak di woor kon kooku ku ñu limaale la kon tuuti la ñuy leeral nag ci ak dundam fi ñuy tàmbalee mooy ganeek àddinam ganeem àddinaam ak askan wi nga xam ni ci la bokk kooku mooy kan mooy Mariama bintu Muhammad ibnu Muhammad Hamad Aliyin Buso kon soxna jaara càllaleem gën naa gudd fii buñ ko toppee day àgg ba ci Seyna Alin mi nga xamante ni mooy yonent bi Seyna Ali mi nga xamante ni Abdul Muttalib moo ko jur mu bokk ak Abdullahi Baay mi nga xamante ni mooy waajur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon soxna jaara kon ku tedd kii dañuy wax ni sërif ci waajur wu góor ak waajur wu jigéen kon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko toppee ak càllaleem day dem ba ci Seyna Ali karamallahu wajhahu kon waajuram bu góor mi ngi tudd Serigne bu Bousso soxna jaara mi ngi feeñ jamono atum 1833 ci garab gu mag buñ ko waxee mooy ci famille bu tedd waaye famille la bu rëy boo xamante ni seenu askan mi ngi sosoo ci sariya lépp sariya kon soxna jaara askanoom sariya moo ko lal waaye moo ko fonde kon waajuram waajuram góor woowu mi ngi tudd Serigne bu Bousso gën a siiw ci Mabousso mi ngi faatu ci jamonoy ndawam sëriñ Mouhamadou Bousso moomu ci digg ay atam misaal guddul woon fan ku teel a wàccub liggéey la kon bi muy wàccub liggéey boobu soxna jaara mën na ni at yi mu am amagu ko ndax moom dafa teel a nelaw bu dee waajuram wu jigéen saydatu aïsatu waalo mbàkke kaanat imraatan saalihatan moom soxna Asta Waalo Mbàkke mii mooy waajuru soxna jaara ñu koy gën a xam ci maam Asta Waalo soxna la woon soo xamante ni soxna su sell la woon waaye soxna su ragaloon yàlla la waaye soxna su géeju woon la ci xam-xam doon ku ñaw doon ku wattu alquranul karim ku ko mokkal doon baroom xam-xam doon kat daan dajale ay nit yor daara ca këram di jàngale kon waajur soxna jaara kenn yaakaar naa kon soxna jaara moo buñ ko xoolee ay jikkoom xool jikkooy waajuram kon yaakaar naa ci waajuram la ko jëlee ndax lii ñu wax ci waajuram wu jigéen lépp moo nekk ci soxna jaara ba ni nga xam ni soxna jaara kon fan la jànge soxna jaara kii di waajuram di maam astawaalo ah isatu mbàkke moo ko jàngal ba mu mokkal alquran kon ci loxoy waajuram wu jigéen ci la jànge alxuraan waaye ci la ko mokkale waaye ci la ko bindee ci la ko mokkale ci la ko bindee ci ay loxoy waajuram yooyu kon génn ko kon ñiy wax naan pour nga jàngal sa doom dina jafe kon yaakaar naa wax ji mel na ni lu ko xaw a dàq ndax sax na jaara njàngam lépp ci loxo loxoy waajuram wu jigéen la ko defee ba mokkal ba bind ay kaamili kaamil ci jamono yi ndax te booba ay atam bariwul jàng mbooleem fànni xam-xam yépp ci la ko jànge ñu ñëw ci ak mbiri diineem yépp ci waajuramu jigéen moo ko ko jàngal kon lan moo doonoon jikkoy soxna jaara soxna jaara nekkoon na ñu gën koo xam ci Mariama mu gën a siiw ci jaaratullaahi mooy lan dëkkaaleb sunu borom subhaanahu wa taala tur woowu ragal gu muy ragal yàlla ak bàyyi gu mu bàyyi sunu boroom xel ci léppam ci liggéeyam ak léppam ba tax ñu tudde ko jaariyatullaahi mooy dëkkaale dëkkaaleb yàlla bi waaye turam dëgg mooy saydatuna mariama buso moom la tudd mu ni soxna jaara mu sas limatul li rabbiha soxna jaara ku oyofoon la nit ku oyof la doonul woon koo xamante ni dafa diis déedéet ku oyof la te mënoon a diis gann ndax yaakaar naa alquran ku ko jàng ba mokkal ko ci jamono yooyu comme ni nga xamante ni noonu lañ ko daan defe ku ko mësaana mokkal fa nga nekk yaakaar naa ku fa dugg rek dina xam ni kii moo mokkal alxuraan te loolu sax mooy li yell ndax téere yàlla bi ku mu nekk sa dënn a ah, wóoroo yaakaar naa yem ak keneen waaye teewul loolu yëpp ak fi mu bokk jikkoom dafa oyofoon doon ku ragal yàlla waaye doon ko sell soxna jaara doon ko teey kasiratu salaati wa saddaxati xawaamatun sawaama soxna jaara ku bari lum daan julli la da daan la lu baree bari waaye da daan saraxe waaye bëccëg yi yi bari da ko daan woor waaye ku jëloon mbiram yépp tamit la jébbal ko sunu borom subhaanahu wa taala yaakaarul woon kenn ku dul yàlla sunu borom doyloowul woon kenn ku dul sunu borom subhaanahu wa taala mbiri boppam léppam daal moom dafa jébbal woon ci sunu borom jox ko léppam comme ni ko doomam ju tedd ji binde a nafru wa durru min arrahmaani laysa min al wa suudaani lor ak njariñ nekkul ci loxoy kenn du ci ku nit ko weex wala nit ku ñuul mu ngi ci sunu borom subhanahu wa taala sunu borom ci la lor njariñ nekk yàlla moo ko yor kon soxna jaara moo taxoon mu jël léppam jébbal ko sunu borom subhanahu wa taala doyloo ko ci lépp waaye ku taxawoon la tamit ci mbiri diineem li nga xam ni war-war yi nga xam ni war na ko ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala mataloon na ko sëkk sëkk sëkk lépp loo xam ni rek war na ci diggante war na ko ci digganteem ak boroomam soxna jaara matale woon na ko waaye teewul àq ji nga xam ne joxoon na ko sunu boroom subhaanahu wa taala ba fuglanteek moom ci farata yeeg na yeeg lépp loo xamante ni lu boroom bi digle leen mu matale ko lépp lu mu tere mu bàyyi ko teewul it taxawaay boobu la taxawe woon matale ko sëkk ci digganteem ak ki ko yàlla booleel muy Mamor Anta Sali bépp xàq boo xamante ni war na ci diggante borom kër ak soxnaam soxna jaara matale woon na ko ci digganteem ak Mamor Anta Sali teewul jaamu yàllaam yàqalu ko dara ci liggéeyam ndax dañuy wax ni sag ñàkk jot bu ko sag jaamu yàlla xam waaye moom day jaamu yàlla mat na digganteem ak borom këram it ak ja ca war matale ko woon na ko sëkk kon soxna jaar amuloon benn jot boo xamante ni bu mu daan nopp noppalu la nee nañ bu daan nekk sax li nga xam ni mooy liggéeyu këram misaal tey muy fóot wala muy togg mu ngi daan tari téere bi di dala ilul xayraat te dala ilul xayraat ci ñi ko jàng xam na ni du téere bu ndaw daf ko daan tari moom la moo nekkoon tey ay wayam bu tariwul alquran mu ngi tari téere xam-xam yi noonu la daan liggéeyee boole liggéey ak jaamu yàlla moom la nekke woon ci këram boole yar ak njabootam ci diine ak taxawaay bu mat sëkk akuk laab ak te ak di leen xemmam loo jaamu yàlla da daan yor taxawaay bi mu amoon mooy yar njabootam ci diine ak topp sunu borom subhaanahu wa taala ak xemmam looleen jaamu yàlla te booba ay tuut tànk lanu teewul ba tey di leen nettali jaar jaari nitu yàlla yi nga xam ni ñooy ña jiitu woon da leen daan indil tuddal benn nitu yàlla ni leen day nitu yàlla sàngam day daana tudd tëdd ba guddi ba guddi gi xaaj mu jug fanaanee naafila ba asamaan set waaye nit yàlla sàngam da daan woor bëccëg yépp daf ko daan woor ba ñu am garaat bu mag bi nga xamante ni moom lañu am am ñoo xam ni tey alxuraan tudd na leen di joxe ay misaal ci ñoom kon soxna jaara foofu la tegoon bëtam ba wax na ni ku tedd ki da daan roy loolu di jug di naafi la te booba ay lislaam tegagu ko dara ay atam ci zaayir matagul sax dal jàng waaye toog gim doon tooga waajuram muy nettali nitu yàlla yi tax na ñoom ñu doon roy loolu ci moom di ko def te booba lislaam tegagu leen lenn kon jigéen war naa góor góorlu bu baax ci yar njabootam waaye di fexe ba lu baax di jiitu ci njabootam ñu koy dégg ci moom wala ñu koy wëlbatiku di ko gis ci seen waajur ba tax yar ko dina yomb lool ci moom ba ñu man di roy lu baax kon soxna a taxawaay bii moom la amee woon. di sant bu baax soxna yi si nga xam moo ñu doon indil Maodo bu am solo bi nga xamante ni yàlla def na mu wàccee ci kàddoom léegi di tem boo xam ni bu am solo la lool waaye rawatina ci jamono bi nga xam ne ci la ko indee indi ku tedd koo xamante ni nii dundam yëpp bu ñu ko jàngatee lépp aw yiw la lépp am njàngale la ci njàngale mu dëppoo lislaam indi soxna jaara te ku ne xam na ni soxna jaara royukaay la woo xamante ni buñ ci royee rek la yàlla waxoon yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ni wa in tutiiu tahtadu saa bu ngeen royee yonent bi salallaahu alayhi wa sallam rek di ngeen jub kon soxna jaara mi mu ñu doon waxtaaneele bépp jigéen bu jël ci moom benn jikko mu di jikko yi nga xamante ni moom la doon waxtaane yépp lu ci jigéen jël rek lam lay yóbbu moo di ak njub lam lay yóbbu moo di nga taxaw ak sa borom ci lu nëbb ak ci lu feeñ kon loolu ñoo ngi ko ciy sant bu baax a baax mu mel ni ni mu ko indee mat na sëkk ba amatul luñ ci dolli dañuy jëm ay njëkkanteeg waxtu wi rek ngir ni jataa bi am na fu ñu bëgg mu tënku fa moo waral dañ koy sant bu baax di ko ñaanal borom bi subhanahu wa gën a barkeel xam-xamam eh, gën koo sàmm ba li nga xam ne ko ci eh, wesaare xam-xam yëpp sunu borom gën koo kàttanal ba mu defe ko ni kaw yor mel ni jikko ñu wax ci soxna Jaara bëri na lool ba nga xamante ni mënuñu cee topp di ko limaat te it ni ko indee mat na sëkk te matale na kon yàlla nañu ko yàlla fayal euh, di fas yéene sof ci loolu rek euh, beneen mawdu boo xamante ni nii daanaka mooy sababu daje bi ñaari ñi ñu fi taxa a daje yëpp da loo xamante mbooloo moo ko tër ngir waajale ko ab ziyaaram mu di la ca njëkk mu di defal soxna jaaritullaa bis bu mel nii waaye nii ki noonu tamit maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam moo di buntu yoon yi ñu amal ko ci bis boo xamante ni nii mooy bis bu wel nii kon loolu lépp dafa daje ci ci bis bi kon dañuy soobu ci beneen fànn bi nga xamante ni moom lañ jagleel ko tedd googu di maam Cheikh Ibrahima Fall ci waxtaane ak dundam ak lenn luñ mën a jëlee ci njariñ nga xamante ni moom la fas yéenoon a jariñ bépp ab taalibe ci sëriñ bi kon dañuy dalal sëriñ Baye Ousmane Diop mi nga xam moom moo ñu fas yéen indil Maodo boobu di ko ñaan borom subhaanahu ubbil ko aw làmmiñam ñawlal ko am xelam ba lépp lu mu ñu indil rek ñu mën caa jëriñ njëriñ loo xamante ni njëriñ lu mat sëkk lay doon kon ñu ngi koy dalal bisimilah sëñ baay auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu wa mawlana wa ala alihi wa wa tamkin mbokki julli ñi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ziar ñu fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi jëwriñu nu mi sëriñ Boubacar Diop di ko ñaanal suñu borom guddal fanam ba li nga xam ne am na ko yéene liggéeyal suñ Tuuba ànd ko waa Daaru gi suñu borom defal ko barke borom Tuuba ñu ngi tuub bu baax a baax ci bi yi nga xam ne ñu ngi koy yëgati di ci tuub bu baax a baax waaye da di am ndigal rek ndigal ci am murid it moom jafe rek ñu fas yéene woon a indi lenn ci dund googu nga xamante ni mooy dundu maam Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin wal muridaat ñu fas yéene ko tënk ci ñetti tomb ñu njëkkante waxtu wi rek bi ci njëkk mooy xamle kan mooy maam Cheikh Ibrahima ci diggante way juróom ak am njàngam beneen bi mooy gëstu gi nga xamante ni ñu ngi ko doon gëstu sëriñ bu mag bi di sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul ñetteel bi di li nga xamante ni moo di philosophie am ci yoonu murit ak rôle bi nga xamante ni def na ko fi kon jëmm jooju di maam Cheikh Ibrahim Fall turam dëgg-dëgg wax na ni moo nekkoon Cheikh Ibrahima Ngoone Fall ñu gën koo xam ci maam Cheikh Ibrahima Fall mu ngi juddoo ci dëkk boobu nga xamante ni moom la ñuy wax Njabi Fall ci atum 1855 dëkk boobu nag wax nañ ni mi ngi nekkoon ci boori Kébémer way juróom bu góor tuddoon Serigne Modou Rokhaya Fall way juróom bu jigéen it tuddoon soxna Zeynabu Njaay moom maam Cheikh Fall moomu mi ngi bokkoon ci famille boo xamante ni famille buur la ci jamono jooju ñu leen wax ak yu jun muy waa Faaleen ci kër Maajoor mu tàmbali ab liggéeyam nag ci ñaari way juróom yooyu di Serigne Modou Rokhaya Fall ak soxna Zeynabu Njaay ci di leen liggéeyal waaye di leen tarbiyu ndax alxuraanul karim kitaab yi dafay wax naan wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana ginnaaw ba nga xamante ni suñu borom jàll na na nga tàmbali ci say ñaari wayjur waaye lépp loo xamante ni mën nga koo rafetal jëme ci ñoom na ko def maam Cheikh Fall tegoon foofu tànkam ci tàmbali liggéey boobu ginnaaw loolu it ki nga xamante ni moo di nijaayam di Serigne Ndiaye Fatma yaram na ko waaye jàngal ko ginnaaw ba nga xam ni wayjur woowu noppalu na di Serigne moo wax nañ ne maam Cheikh sax na fi nga xamante ni moo di njare ñàmbo ba sax fa diir bu yàgg waaye jàng fa xam-xam yu bari mu mel ni rek kon maam Cheikh ku tàmbali woon ab liggéeyam la waaye ku teeloon a lu baax la ci xam fa mu ndax yoonu suñu borom daldi dañ koy teel a sóobu waaye da ngay bàyyi kon moom ku teeloon a xam loolu waaye it sax na ci dëkk boobu di fa jàng ba suñu borom war koo wax mu feeñal jëmm jooju nga xamante ni moo di borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax feeñal nitu yàlla wax nañ ni nit dina ci amee aljana boo demee ci qisatu Muusa ci alquranul karim suñu borom mu ngi koy wax wa jaa rajulun madina googu mu mel ni rek maam Cheikh Fall bàyyi ni lépp fas yéene wër kooku nga xamante ni moo di Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bi mu ci tàmbalee nag daan na ci dégg lu ne maam Cheikh xaw naa wéri dégg yu ne mel waaye Sëriñ Tuubaa mu ngi wax ci xasiida yi naan qaalu safihun li sarfi anhumu basari ñu ngi ma daan wax naan ma borom Tuubaa dangaa dese kat waaye li ko waral mooy ñàkk gi ma ñàkk bokk ak ñoom gisin dafay law ba ci suñ jamono ji nga xamante ni képp koo xamante ni dangaa fas yéene dëgmal suñu borom dañ lay àtte àtte koo xamante ni àtte ku dese ngir ni wan gi ngay wan ginnaaw mu mel ni rek maam Cheikh sax na foofu di wër ki nga xamante ni moo di borom Tuubaa ba jaar ci dëkk yu bari bokk na ci dëkk yim jaar ngir wër ci sëñ moo di Njàmbur Kayoor Bawal ak Saint-Louis di Ndar mel ni maam Cheikh Fall jaar na ci dëkk yooyu di fa wër ki nga xam ne moo di suñ Tuubaa waaye it bi suñu borom nammee ñu gisante wax na ni borom Tuubaa mi ngi nekkoon dëkk bi nga xamante ni moo di Mbàkke Kajoor boo demee ci menanul baaxil xadim bu Cheikh Mouhamadul Bachir moo nu indil lii nga xamante ni ñu ngi koy bëgg a leeral muy diggante gisante suñ Tuubaa ak maam Cheikh Fall ci Mbàkke Kajoor ba mel ne rek sëñ bi dafa yónni woon ñaari taalibeem yooyu di Cheikh Ahmadou Makhtar Touré ak Cheikh Adama Gueye ñu demoon ci sëriñ boobu nga xam ni moo di Cheikh Ahmadou Bamba Sylla wax nañ ni it Cheikh Ahmadou Bamba Sylla moomu ki nga xamante ni moo di maam Cheikh Ibrahima Fall jaar na fa di fa gëstu sëñ Touba ngir Ahmad boobu nga xam ni déggoon na ko fa daxam mooy suñu Touba. mu mel ni bi mu leen yónnee ci jëmmu jooju ba ñuy dëpp mu mel ni rek maam Cheikh Fall def leen seen waaye bi mu leen gisee mu mel ni seen kanam yooyu dafa mel ni dafa ñuy gis leer boo xamante ni dafa mel ni dafa nekkoon kam doon wër muy jàmbaaram jooju di sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ndax boroom xam-xam yi dañuy wax na lillahi qawmun isa xallu bi manzilatin xalla nada wa alat fi ljawi anwaaru tashaaquhum kullu ardin yanziluuna biha ka annahum li biqaa illahi amtaaru suñ boroom am na gaayam yoo xamante nii bërëb buñ wàcc rek leeru suñ boroom dafay jolli waaye bu fekkoon bërëb boobu dafa bekkoor day daal di nat ngir leer boobu nga xamante nii jëlee nañ ko ci suñ ci suñ tuubaa mu mel ni rek eh, suñ maam Cheikh Fall dafa gisoon loolu rek fas yéene ànd ak moom ki ba fa nga xam ne moo di borom Tuubaa Xaadimu Rasuul wax nañ it mi ngi egg si sëñ Tuubaa ci ñeent fani koor waaye gisanteeg moom ci juróom-ñeenteelu fan ba waaye mi ngi jébbalu ci ñaar fukkeelu fan ba boo demee ca menanul baaxil xadim Cheikh Mouhamadul Basir mu ngi koy leeral foofu waaye ba nga xamante ni war naa jébbalu muy ñaar fukkeelu fan wax nañ ni bi mu egsee ba nuyoon nuyoonteeg sëñ bi mu ne ko lu doonoon say tànk mu ne ko dama bëgg sëriñ boo xamante ni daf may àggale ca yàlla mi ngi tudd ahmaru ak la nga xam ne mooy la toog wax na ni sëñ Tuubaa def ni ko sëriñ boobu boo ko gisul nooy def mu ne ko su ma ko gisul ñu joxañ ma ni fii may xabroom dinaa fa saxal sama yéene ba am loolu nga xamante ni dégg naa ko ci moom ba am ngërëmam wax na ni sëñ Tuubaa ni ko boo ko gisul boobu nooy def mu ne ko bu ma gisul ñu xamal ma ni ma asamaan si moo ko daan tiim waaye biddiw yi it moo ko daan tiim suuf si la daan dox dinaa fa saxal sama yéene ba am loolu nga xamante ni moom laa bëgg ci sëñ mu mel ne loolu tolluwaay bu kawe la lool mi ngi jébbalu ci atum 1882 boobu it maam Cheikh Adam Fall mi ngi amoon ñaar fukki at ak juróom-ñaar di 27 ans waaye bi muy ñëw ci sëñ Tuubaa fekk na fa fanweeri nit ak juróom-ñeent ci ay taalibe moom maam Cheikh Adam Fall bi mu ñëwee moo leen ñeent fukkeel mu mel ni rek boo xoolee tuuti ci lislaam Seydina Omar ibnul Xattaab bi muy ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon quarantième taalibe waaye it amoon fa pas-pas boo xamante ni moo ko may loolu nga xam ne ni am na ko moom la seex Cheikh Moussa di nettali di wax naan mas nay xibaar ak jébbaloom bay wax ni yàlla mii ko moom moo ni ko bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon ba ab murid di aw baraw pexe marid ba am ngërëm barib murid te dooturee di tax taxi mu daal di dem ba Dakar ngir dégg Bamba di fa xaar seet na sëriñ Tayba Dakar cim njàngale xamee pexe mu tëdd guddi listixaar ba mu xëyee ba tusubaar sëriñ Maxtaar Touré fa jaar leeram nga wan ko ay pexe Maxtaar Touré nga yori joor yanu ko jëm Mbàkke Kajoor Seex Bamba yónni ko ca góor Seex Ibra topp cay pexe ba gis fa sëñ Aadama Gay ni mbiram daal di ca mooy mu wan ko Bamba mbër mu rëy sëriñ bi naan ko foofa xëy mu wax ko tegtal ya fa moom Cheikh Bamba wax ko la fa moom mu dal ni gis na ko fa moom mu dal di fa mbiram joxe ma wax la bis ba ndax mu wóor ñaar fukki fan ci weeru koor bi sub di la mbir ma wóor Cheikh Ibra yaare yi pexe mu mel ni rek maam Cheikh fan ci noonu la gisante sëñ Touba waaye jàll mbiram lépp daal ko koy jox fas yéene ko dëgg man bàyyi njabootam bàyyi àdduna bàyyi lépp ndax suñu borom dafay wax naan inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi an lahumul janna man suñu borom jënd naa saxaaba yi seeni alal ak seeni doom waaye li ma leen ko fayee moo di aljana mu mel ni rek kon képp koo xamante ni dangaa bëgg suñu borom dangay bàyyi lépp wan lépp àdduna wan ginnaaw àdduna mu mel ni maam Cheikh Rafa rek foofu la tegoon tànkam waaye sax ci kër Sëñ Tuubaa googu tàmbali fa ab liggéey boo xamante ni bi ñëwee ngir xamle kan mooy Sëñ Tuubaa ak bëgg jariñu ci suñ tubaay dafa ni sax man saxibana li tax li taallumi fal yanzur li nafsihi wal yazi li jinsihi wal yazab xaysu shaa wa man arada ma naa fal yasir bi sayrina képp koo xamante nii dangaa bëgg a ànd ak man ngir sakku xam-xam rek man ngaa dem xool sëriñ bu xeetoon noonee nga ànd moom waaye it heure bu la soobee man ngaa dem waaye képp koo xamante nii dangaa ñëw bëgg li ma bëgg na nga des man mu mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall rek foofu la tegoon tànkam waaye it ginnaaw bi nga xam ne jébbalu na ñëw na ci kër sëñ bi tàmbali fa ab liggéey bu am solo bokk na ca di tere ku toogandoog sëñ bi di ku xewlandoo ak moom képp koo xamante ni danga koy nuyu te doo sukk wala nga koy nuyoo benn loxo mu mel ni rek maam Cheikh dafa ñëw rek teral loolu kër sëñ Touba waaye it fexe ba képp koo xamante ni defoo lu lu mel dina ko jëflanteeg yow ci zahir ak ci baatin waaye fexe ba tasaare sëñ tuubaa ci dëkk yooyu nga xamante ni moo ko wër bokk na ci dëkk yooyu di di njukki ak jamatil moom la Cheikh Moussa Ka di wax ba tey naan diggante njukki ak jamatil dan daan dajee naani biteel yaa tax ba diine di fa leer faam njaga yaari yi pexe yaa tax ba Abdoulaye xaar taxaw ci bunt di ba xaar woyof lu bay lekk daqaar ngir ngir sopp Bamba mi pexe mu mel ni rek maam Charafal tasaare diine foofu waaye xam le sëñ Tuuba daan leen jëmm ji du kuy du koo xamante ni dañuy toogandoo ak moom wala ngay wax di jëme ci kawam bu la joxul ndigal bul dugg ci këram mu mel ni rek loolu daf koo royee ci alquranul karim kitaab yi ndax daan na wax naan man Cheikh Fall alquran juy dox la mu mel ni rek am nay jamono suñ borom di wàcc ay aaye jëmale ko ci julli ñi nga xamante dañoo gëm ndax booba xamuñu woon doyo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci aaya yooyu yaa ayuha alladina amanu la tadxulu buyuta annabii إلى أن يوزن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث yéen ñi nga xamante ni di ngeen a gëm seen borom bu leen bi dugg kër yonent bi wala néegam lu dul ñu def leen jox ndigal waaye bu leen joxee ndigal ngir ngeen xewlu boo leen paree na ngeen génn ca saasa bu leen laajee ngeen tontu yam ja waaye bu leen laajul bu leen yëkkati seen kàddu soo leen paree ngeen dem ci nu mu gën a gaawee ba tey muy wax naan yaa ayuha alladina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabii yéen ñi nga xamante ni di ngeen a gëm yàlla bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi inna allazina yunaaduunaka min waraa alxujaraati aksaruhum laa yanqiluun walaw annahum sabaru xata taxaruja ilayhim la kaana xayran lahum wallahu gafurun rahim yéen ñi nga xamante ni di ngeen a gëm bu leen di woo yonent bi ci ginnaaw fenêtre wala lu nu mel boo leen ko gisul na ngeen toog muñ ba mu ndax loolu mooy tawféex ci yéen yéen ñii def loolu nag ñu ci ëpp amuñu xel lu mel ni mooy li nga xamante ni te soo Tazawudu Choubane dina ko def ci bu demee ziar boo gisul sëriñ bi nga toog di jàng di jàng ba mu génn su génnee ñaanal la nga dem soo ko gisul nga joxe sab addiya dem mu mel ni loolu maam Cheikh Ibra daan na ko defee kër sëñ Touba di force taalibe yi ngir ñu def loolu mu mel ni rek mu sax ci loolu boole ko di liggéey ak root boole ko tamit di xidma moo tax mu daan wax naan dama fay ñëw man ma maam Cheikh Fall fekk fi ibadatul ulumiya muy jaamu yàlla ci xam-xam man ma indi fi ibadatul xidmiya muy jaamu yàlla ci ak liggéey moo tax li nga xamante ni moo nekkoon sembaloon mooy mabdaul xidma wal himma mu sax ci liggéey boobu ci kër sëñ Touba diir bu yàgg boole ko di xidma ak himma waaye moom mooy ki nga xam ni it moo fi indi li nga xamante ni moo di màjjaal loolu nga xam ni Baay Faal yi ñu ngi koy def mu mel ne rek jubluwaay moo taxoon dind ci taalibe ya fa nekk ak rëy ndax màjjal yaakaar naa ku rëy du ko def mu sax ci loolu ba ñuy taxawal jumaa yi nga xamante ni mooy jumaa yu njaareem maam Cheikh Fall wax nañ ni participé na ca lu toll di cinquante mille ci xaalis boobu it mu nekkoon xaalis bu bari waaye jamono ji it nga xamante ni ñu ngi exilé sëriñ bi ci Gabon maam Cheikh Ibrahima Fall daan na ci dox ay intervention ngir dellu seeg sëñ bi mu mel ni rek kon ku xamoon àdduna la ci fànn yëpp mu ci loolu di tudd ki li nga xamante ni moo di suñu borom muy baatu laa ilaha illa allah ndax suñu borom dafay wax naa inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala zikrullahi akbar li nga xamante ni mooy di julli day dindi ay ñaawteef ak ay bon bon waaye li muy màgg màgg tudd tur yàlla moo ko gën a màgg moo tax maam Cheikh Ibrahima Fall saxoo loolu waaye fexe ba taalibeem yëpp yit sax ci loolu moom la suñ di wax naan amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksaru tudd tur yàlla boobu moo gën a mag ci lépp loo xamante ni ab murit mi ngi koy faral di ko def waaye ci noonu suñ Tuubaa jox ko ndigal mu taxawal kër googu nga xamante ni mooy këru suñ Tuubaa gu njëkk ñu mën koo tuddee Daaru Salaam ak Mbakke yi ma maam Cheikh Fall moom mi ngi wàcc liggéey ci atum 1930 ginnaaw wàccug liggéey sëriñ bi ci ñetti at yàlla na ko suñu borom gërëm te taas ñu ci barkeem wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yallaahu ya ahadu salli sarmada على النبي العربي أحمد وآله وصحبه والتقطعين فعلي ما لم ترد لي ينقطعين بك بخير آفة وقدرين يا ذا البرايا والخدا والقدرين وسل يا لطيف سرمدا على من كلما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به جملة ما مني صدر خير ردا وليقل بسر القدر وسل يا لطيف ولتسلما على الذي به جلوت الظلمات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني عن كل ما لم تقدري لي ونبهني عليه واستري وسل يا ودود ولتسلمين على الذي لو سرفت قلمي بك سنين عابدا لك بي ah, bu ko defee rek eh, ñu fas ne commencé assemblée général bi ci ndigalu jëwrin comme ni ñu ko waxee woon eh, mooy ngoom comme eh, bépp commission boo xam ni am na liggéey bu mu war a liggéey ci ziar bi rek mu présenté ko fii ci kanamu mbooloo mi yëpp incha allah bu ko defee ñuy commencé ci commission secrétariat bi ñu dénk ñu fas yéene leeral li nga xam ne moom lañ fas yéene liggéeyal ci ziar bi incha allah bu ko defee dinañ defar liste yi nga xam ni mooy liste yi nga xam ne ñoo fas yéene dem ci ziar bi dinañ defar aussi reçu yi ak billets yi billets yi aussi buñ ko defaree ba pare dinañ ko joxe. Ah, defar numéro yi nga xamante si nii moo jëm ci oto yi ak affiche ci nga xam ni moom la waa commission communication war a poste ngir yaatal bis bi tënk aussi li nga xam ni mooy heure u départ bi ak heure u départ retour bi aussi fas yéene tënk aussi itinéraire bi mooy fi ñu fas yéene jaar Ah, loo ak eh, li nga xamante si ni mooy lettre de demande yi nga xam ni moom lañ fas yéene amal ci service yi nga xam ni bëgg nañu jàpp ci ziar bi lettre yëpp fas nañ ko yéene binde ànd kook waa sécurité loolu daal la waa commission secrétariat tënkoon ngir fas koo yéene liggéeyal Serigne Touba ci ziar bi ñu dëgmal ah, kon ñu fas yéene jaar ci beneen commission muy commission communication bi sëñ Ousmane Fall jiite ngir mu leeral ñu li nga xam ne moom lu fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci ziar bi ñu jëm bisimilah. xam naa di jégalu kàddu gi bu baax ndax lii ñuy def nii sëñ Xaadim Gueye moo ko a def dafa mel ni dafa jàpp mu sàkkoon ñu defal ko ko kon ci turam lañ koy defe commission communication li fas yéene liggéey yéen sëñ ci. ziar bi ñu dëgmal euh, di ziaru fanweeri at yi ak ñetti daayira Tazawudu Subaan dëppoo it vingt-septième édition maanaam ñaar fukkeelu ziar ak juróom-ñaar ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér loolu nag ñu jàpp ko ci janvier bi ñu jëm ci juróom-ñetti fan ya dëppook ñu fas yéene ziare Touba. Euh, siyaare ndindi gi nga xam ne sëñ Fallou Mbacke moo ko sancoon ci ndigalu sëñ Touba ñu wax ni ziar bi ren ñu jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall kon li ci jiitu mooy sunu yitte mooy fexe ba mbooloo mi yëpp am xemmeemu dem ci ziar bi képp ku mus bind ci tasawul subaan di góor ak jigéen mag ak ndaw sunu yéene mooy ziar bi doo ko wute loolu nag niñ koy defee mooy di ci waxtaan ak di fàttali Sëñ Tuubaa xemmeem tiif gi mu amoon ci ziyaare sëriñam ba muy yant bi sallallahu alayhi wa sallam te moom lañ def ci banderole bi ci biti muy kullu zamanin la adaalu atlubu liqaahu gi warxabu sëriñ bi maanaam mustadeñ di sàkku ak di yaakaar ak di xemmee ma ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte xam nañ ni amoon na ay gàllankoor waaye moom fu mu toll rek mu ngi jàmbat ni dafa bëgg ziyaara ji yonent bi xemmem te googu sëñ bi amoon nag ñu bëggoon ñëpp am ko ci dajeeg sëñ Muntaxa bi ci des mooy ñu defar ay affiche yoo xam ni day yëgle ziar bi su defee ci fi ñuy faral di jaarale ab yëgle mooy ay réseaux sociaux ñu jaarale ko ci dinañ amal li ñuy wax it annonce vidéo maanaam def benn woote bu yaatu jaarale ko ci réseau câble câble yi te mooy télé yi nga xam ni moom la ñu faral di seetaan suñu kër yi ñu mën cee tudd Thiès Média waaye tamit site internet yi mën nañ cee tudd Faaida TV bi nga xam ni Serigne eh, Makhtar moo ko yor ñoom ñëpp di suñuy partenaire ak ku mel ni Medina Fall TV. ak képp koo suñu borom dogal na nga mën a ñëw jàpp ci yaatal liggéey bi dinañ fexe it amal ay palaato waxtaan yoo xam ni ñoom lañ koy seqal ngir gën a leeral liggéey bi loolu dafa jëm ci anamu lu jiitu ziar bu ñëwee ci ziar bi nag niñ ko baaxoo defee couverture médiatique bi moom tamit dina gën a yaatu dinañ jël ay vidéo dinañ jël ay photo dinañ def live dinañ amal it ay publication maanaam léeg-léeg fi ñuy tollu rek ki demul sax dañuy fexe foo mën a nekk ci àdduna nga di ko xam bi ñuy jógee Thiès ba bi ñuy ñëwee Touba ba bi ñuy ziyaari si Muntaxa ba bi ñuy demee Ndindi ba bi ñuy waññeeku lépp rek ku topp ziar bi bu soowee suñu toit yi nga xam ni mu tëddee euh, buñ ci bàyyikoo nag maanaam ñu jëlaat loolu yëpp seggaat ko jaar fi ñu jaaroon ci internet ak réseau câblé euh, ak fépp rek support bu ñu mën a jëfandikoo ngir ziar bi mën a tasaaroo dinañ ko def ngir ziar bi ñëpp xam ne nii la tëddewoon kon loolu la commission bi tënkoon nii ziaru ren bi noonu lañ fas yéene doxee ngeen baal ñu àq ñu delloowaat kàddu gi sëñ Modou Ndiaye jërëjëf sëñ Fall ci leeral yi kon ñu fas yéene jàll ci commission tarbiya wa taalim bu sëriñ Xaadim Lo jiite bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu du leen ziyaara bu baax a baax di jiital ci nuyoo boobu jëriñ sëriñ Boubacar di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu dëgëral ko moo ñu koy jàppale ci liggéey bi ba nu mën ci am ndam yu kawe kawe ginnaaw loolu comme ni ko sëriñ moo du waxee commission bi nga xamante ni moom lañ dénk yar ak xam xamle ci ba daara Tazawudu subaan daje nañu tënk ay tomb yoo xamante ni gaaral nañ ko ci bureau bi ginnaaw loolu it sàkku nañ ci ñun ñu eggale ko ci mbooloo mi te mooy ay waxtaan yoo xamante ni dañ koy dof muy waajtaayu bis bi te booba it bokk ca bii nga xamante ni amal nañ ko tey ndax ni ko sëñ Ousmane waxee ziar bi dañ koo jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall ñu waroon a amal waxtaan woo xamante ni ab dundam lañ ciy jàngale jataay boobu mooy bi nga xamante ni moo amoon tey jii waaye ginnaaw loolu it barab bi nga xamante ni moom lañu tànn ngir jagleel ko ziar bi muy ndindi dinañ ci def ay waxtaan ci jataay yi ci suñu kanam waxtaan ci wax ci taarix bi ak ndigal li nga xamante ni sëriñ bi joxoon na ko sëriñ Fallou radiyallahu anhu mu sos ko ak li nga xamante ni moo taxoon mu sos ko loolu nañ ci waxtaane waaye li jiitu ziar bi des na waxtaane ci teggin yi nga xamante ni jamono bu ne mooy taaral li ñuy def te ku xam tasawdu shubaan ci loolu nga ko xamee waxtaan ci teggin yi nga xamante ni moo aju ci ziar bi képp koo xamante ni maa fay dem ni nga xamante ni la war a melawoo bu dem ba bu demee ba dikk loolu lépp incha allah bëgg nañ cee waxtaanee gën cee gindi mbokk taaliba yi balaa bis baa ñëw incha allah ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu kàttan ba loola ñu mën koo amal ñu ngi sant baax baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah ci leeral yi bu ko defee ñu jàll ci commission sécurité bi sëñ Cheikh Cheikh Dieng Pastef jiite euh, sëñ Jibi Sey teewal ko fi bisimilah. fas yéene leeral li nga xam ni moom la commission sécurité bi ci ko tënk ci ñetti mbir. muy lu jiitu bis bi ak bis bi ak ginnaaw bis bi lu jiitu bis bi commission bi dina def ay lettre demande yoo xam ni day jëm ci service yi nga xam ni baaxoon nañu ànd ak ñoom ci liggéey bi lu ci mel ni police ak Croix-Rouge ak région médicale ginnaaw loolu tamit dinañ def tournée ngir saytu barab yi nga xam ni fas yéeneen faa jaar ci ziar bi ginnaaw loolu tamit dinañ def ay ndaje waxtaan yoo xam ni ngir gën a mën a jëkkuwaat liggéey bi kon loolu mooy lu jiitu bis bi police tamit dinañ fa demande bi ñu fay def ngir ay éléments yoo xam ni dañuy ànd ak ñoom ci liggéey bi ngir bu ñu yegsee bala ñoo départ tali bi ak tout tànk yi ñu taxaw nit yi bu baax couloir bi tamit ngir ay éléments yoo xam ni tamit dañuy ànd ak ñoom ci liggéey bi raison médical ngir ay médicaments yoo xam ni dina yombal liggéey Croix-Rouge ginnaaw loolu tamit bu ñu yegsee ci bis bi commission bi dina fi jiitu si mbooloo mi fexe ba dajale mbooloo bi yëpp ci daara ji dajale mbooloo mi ci daara ji taxaw tamit xale yi tamit ak tari bi ànd ko ak waa police fu sept heures jotee incha allah dinañ rappel bii si bu fa yéene départ ginnaaw loolu tamit dinañ ci ànd ak tamit waa police ba ñu yegg ci péage bi ngir mën a yombal maanaam dem bi bu ñu yeggee Touba incha allah dinañ wàcc ci jumaa ji ziar barab yi nga xam ni moo aju ci jumaa ji ginnaaw loolu dinan taxawaat taxawaat mbooloo mi ñu. ziar barabu Cheikh Ibra ci armeel yi ginnaaw loolu tamit dina dajalewaat mbooloo bi yëpp taxaw leen ñu duggaat ci oto yi jëm di kër seen Fallu bu nu yeggee dina taxaw mbooloo mi xàjjale leen ci tout tànk yeeg soxna yi ak góor yàlla yi comme niñ ko baaxoo def ci ndaje yi ñuy amal taxaw leen tamit ba ñu ziare kër Sëñ Fallu yi bu noppee ci ziar boobu dina dajalewaat mbooloo mi taxaw leen ba ñu dellu dañ jëm ca dal ba bu ñu yeggee ci dal bi incha allah dinañ taxawu tamit ndaje bi nga xam ni maanaam commission culture dana ko amal foofu danañu taxawu ndaje moom bu noppee ci loolu tamit dinañ taxaw mbooloo mi ban xëwlu ba noppi ginnaaw bu xëwloo ba noppi tamit dinañ génn mbooloo mi ci biti wala leen kër gi nga xam ni moom la fa mbooloo mi am muy kër Sëñ Tuubaa yi nga xam ni moom lañ fa fàggu buñ jógee ci loolu incha allah dinaan taxawaat mbooloo mi dugal leen ci oto yi ñuy dem ziar yi sëriñ bi buñ yeggee comme niñ ko daan taxawoo ci ziar yi weesu dinaan fexe ba xàjjale soxna yi ak góor yàlla yi ak tuutànk yi ba ñu ziar ziar bu ànd ak tawféex sëriñ bi buñ noppee ci loolu tamit dinaan dajalewaat mbooloo mi yëpp ñu fas yéene dugg ci oto yi ngir ñibbisi incha allah buñ yegsee ba ci péage bi tamit comme ni ñu ko àndee woon ak waa police noonu lañ koy àndee ak ñoom ba yegsi ci daara ji taxaw mbooloo mi ak tali bi ba delluwaat seeni kër bu nu jógee ci loolu muy ziar bi ginnaaw ziar bi tamit dinañ defaat ay lettres yoo xam ni santam gërëm lay doon yu jëm ci ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci liggéey bi lu ci mel ni police ak Croix-Rouge ak raison dinañ def ay lettres yoo xam ni day jëm ci ñoom di leen sant di leen gërëm jaajëfal leen ci liggéey bi kon lii mooy commission lii mooy liggéey bi nga xam ni moom la commission sécurité dafa séenee liggéey ci ziar bi ñu waajal di ñaan sëriñ bi yóbbuñu ci ak jàmm te ñu defee ko ak tawféexu sëriñ bi barke borom Tuubaa. jërëjëf sëriñ Jibi Sey ci leeral yi ñu fas yéenee déglu waa commission transport ak bas bu sëñ Bayda Sow jiite te suñu fàllu bal teewal leen fi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di siyaar di leen baalu àq te di leen baal ak di leen ñaar liggéey bi ñu liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu ma jiital ci nuyoo bi ak ziar bi ak ñaan yi Sëriñ Boubacar Diop di ko ñaar mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di siyaar mbokki taalibe yépp di ñëw ci li commission transport ak baas tënk ci ziar bii le 8 janvier incha allah ci njiital Sëriñ Bode Sow fas na wut ay biis yu yóbbu mbooloo mi wut ay oto yu ndaw tamit yu yóbbu jóomiñ dina yóbbaal tamit ay bâche démontable yoo xam ni suñu àggee dañ koy monter ngir nit ñi mën cee ak fanweeri basang yoo xam ni dañ koy lal pour tokki fu ay affiche ci oto yi ngir kenn ku ne mën a xàmmee oto bi nga duggoon bi dem jiite convoi yi aller ak retour maa ngi sant ñëpp ci tub sëñ Bodo Sow laa na waxee nag jéggul jërëjëf. di sant bu baax si leeral yi ah, bu ko defee ñu déglu commission culture bi sëriñ Aline Diop jiite sëñ Touba Diop teewal ko fi bisimilah. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di jiital ci nuyoo bi nañu mbooloo mi sëriñ Bokar Diop di ko ñaanal yàlla yàggal ko suñu kanam ba yéen yi nga xam ni am na ko ci liggéeyal sëriñ bi yàlla na ko àggale ci barke borom Touba di nuyu képp ku fi teew di leen ndokkeel bu baax ci bis bu màgg bi ñu tegleel ko soxna jaaratullahi radiallahu anha ak maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu anhu di leen ci ndokkeel bu baax mel ni bis bu màgg la di ko ñu ko waxee rek inda zikri saalihiina tanzilu rahma fépp fu ñuy waxtaanee nit nitu yàlla yërmande yàlla dafay wàcc ñaan yàlla defal ñu ci tawféex bu ko defee dañuy fas yéene leeral rek ni nga xame ni noonu la commission culture fas yéene liggéeyal sëriñ Touba ci ziar bi. ñu koy jël ñu jël kàddu gi ci ndigalal jëwriñu liggéey bi Serigne Alioune Guèye dina ñu jàng ñetti kaamil bala ñoo dem benn bi àddiyee sëriñ Touba ñaareelu kaamil bi ñu def ko àddiyee sëriñ Saalix Mbàkke ñetteelu kaamil bi ñu def ko àddiyee maam Cheikh Ibrahima Fall ñi nga xam ni moom lañ jagleel ziar bi bu ñu duggee ci oto yi dinañ fa amal njàngum durus xasiida ak ay limu tasbihaat zikrullah salaatu ala nabi basmala loolu ñu jagleel ko sunu waajur yi bu dee njàngum xasiida bi ñu jagleel ko kuréelu xasiida yi bu ñu àggee Tuubaa barab yi ñu fas yéene ziyaare kuréel gi danañu jiitu ànd ak njàngum xasiida bu ñu àggee kër sëriñ Tuubaa gi ci Ndindi muy kër gi nga xam ne mbooloo mi ñoo ko fàggu ngir liggéeyal sëriñ bi dinañ fa amal njàngum alxuraan ngir ñaan ci barab bi yéene yiñ ci amal yépp yàlla mottali ko bu ñëwee ci sëriñ Muntaxa Mbàkke ngir jébbal ko sunub liggéey ziyaare ko kuréel gi danañ fa amal njàngum xasiida ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér kon lii mooy liggéeyu commission culture ci ziar bi nga xam ne ni moom lañ dëgmal ñaan yàlla na ci àll yóbbu jàmm yàlla defal ñu ci lu kawe njort wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa Touba ci leeral yi bu ko defee ñu dem ci commission bernde sëñ Ousmane Badiane jiite sëñ Ibou teewal leen fi bisimilah. Abdoulaye ngi siyaar bu baax mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi jëwriñu mbooloo mi ñaan yàlla na suñu yàggal liggéey bi bu ko defee ñu ñëw ci. li nga xamante ni moom la commission bernde fas ni liggéey ci ziar bi ñuy waxee ni kàddu joriñ sëñ Ousmane bajaan bu ko defee ginnaaw bi nga xamante ni commission bi amal na ay daje comme ni ko bureau yi sàkkoo dundal lu jëm ci wàllu bilan bi nga xamante ni moom la commission bi soxlal ci ziar bi ne loolu commission bi dina dox lépp loo xamante ni bagage la boo xamante ni commission bi dina ko soxla pour mën a jagal liy jagal bis bi neen loolu jëwriñ Badiane ak commission bi dina wut ndaw loo xamante ni moo leen nekkal Touba ngir lépp loo xamante ni commission bi dina ko soxla mu mën ko fàggul balaa commission bi jógee Thiès di dem bu ko defee bu nee suba la ziar bi commission bi fas yéene fee xëyee bu ñu demee wàññi lépp ëpp ci liggéey bi jëwriñ Badiane ak ñoom koy àndal jox wuti li jëm ci wàllu gàtt bi ñu ngi xëyee bisu ziar commission bi fas naa amal taal fa juróom-ñaari mbana yoo xamante ni moom la mbooloo mi barkeeloo ni ki noonu bu ñu añee ba pare dina fa séddale lépp lu jëm ci wàllu collation muy poisson café ak yu ni mel ginnaaw loolu commission bi dina ginnaaw loolu commission loo xamante ni mooy bagage bu noppee ànd ak mbooloo mi àggale li des ci ziar bi di ñaan suñu borom ñu bëgg ci ziar bi yëpp mu defal ñu ko lu kawee suñu doon ñu ngi tuub baax ci kàddu yi lépp lu ci dëng rek ngeen xam ni ki doon ko la waaye commission bi ka yebal lépp ma dee na fa jaa ngeen jëf bu ko defee ñu dem ci commission finance bi moo Mor Sow jiite bismillah aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi jëwrin ak seen jibi xulle ak sunu mbokk yi nga xam ne ñoo teew léegi fas yéene ànd ak ñun liggéey bi di ziyaaraat mbokk taalibe yépp bu baax nag di rafetlu jotaay bi ak ñi nga xam ni noonu lañ koy dundalee boobu ak léegi euh, di fas yéene ñëw rek ci ñëw boo xam ni mooy ginnaaw bi nga xam ni commission yépp jàll nañ te képp ku ciy wax rek di wax loo xam ne moo jëm ci ziar bi ñu itam ñu àddoo foofu muy commission bi nga xam ni moom la ñuy wax commission finance daayira Tazawudu Chubaan yor lépp lu jëm ci wàllu àddiya ak tëralinam ak dugal ak génne bu ko defee ñu wax ni ziar bi nga xam ni moom la ñu jëm suñu kanam ñaari mbir lañ ciy liggéey mooy dajale àddiya ji ñuy ziare waaye itam dépensé ko poñ bi ci jiitu muy dajale mooy li jëm ci ziar bi fas yéene nañ cee dajale du ñuy lu toll ci 3 millions 700 yoo xam ni 2 millions yi dafa jëm ci àddiyee sëriñ bi 1 million 200 yi jëm ci wàllu transport waaye 500000 bi jëm ci lépp luy dépense commission bu ñu tuddee loolu nag ñi nga xamante ni ñu ngi sant caam ak yooyu dinañ xalaat ne ñun moom. téeméeri junni duñ ci mën a xéwloo kon dana jariñu taxaw leeral leen ni cinq cent mille boobu dafa yem rek ci li ngeen dégg ñoom sëñ Béda Sow wax ko ci wàllu baas ak wala ñoom sëñ Modou Ndiaye wax ko ci yenn ci wàllu secrétariat wala sëñ Ousmane waaye lépp loo xamante ni bernde la jëriñ dafa joxe ndigalu ñu jaayante ko jaayante nag du gan ci mbooloo mi ndax amaana programme gën na koo rëy fuuf ñu jaayante ca loo xamante ni eh, day kawe njot loolu kon murit bi fi toog rek na xam ne war na ko ginnaaw àddiyaam beneen jaayante boo xamante ni dafa jëm ci wàllu bernde bokk ci ziar bi kon loolu mooy li nga xam ni moom lañuy dajale ak itam ni ñu koy génnee daanaka benn la rek da ngay dajale 3 millions 700. génnewaat ko ci loolu ma tudd waaye dajalin wi fi mu ne daanaka moo jara def ab taxaw seetlu nag mooy ni mbooloo mi dañ koo xaaj ci ay catégorie xaaj ko ci diggante góor jigéen mag ak ndaw ku ci nekk itam ñu togg la aw sas woo xam ni at nga koy joxe waaye ziyaar di mujjantal gi kon di ci ëpp solo mooy ku ci ne mu xam fi mu tollu nii moom at mi bi mu ci duggee ak léegi maanaam bi nu jugee ziyaaru bii weesu ak léegi fu mu toll ci àddiyam ndax tollatuñu ci wax événement événement yëpp jàll na ñi ngi tollu ci tënk at mi kon addi at la ñuy wax addi at moomu nag ku ci ne da cee am sa wàllu bopp bu ñu ko tàmbalee ci ñi nga xamante ni ñoom lañuy tuddee magi daayira bi nga xam ni dafa séddalikoo rek ci ñenn ci waa Dimanche muy bureau bi ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu bokkuñu ci bureau bi waaye ay kilifa lañ maanaam ay mag lañ ci daayira bi ñooñu dañoo wax ni 63000 mooy seen addiya ci at mi 63000 yooyu nag tembe tembe li nga war a lijjanti mooy lu ma ci joxe ak lu ma dese bu nu ñëwee ci ñi ñuy wax waa Dimanche 1 muy ñoom suñu am di sàmb ñoom suñu góora ak kilifa yooyu. ñoom yu 48000 lañ war a joxe 48000 yooyu itam kazalika liñ ci war a gëstu mooy luñ ci joxe ak lu ci des moom beneen catégorie ñu muy wax waa dimanche 2 nga xam ni ñoom daanaka dañuy mën a wax ni 33000 la lañuy joxe muy ñoom sëñ Ibrahima Dieng mii fi toogoon ak ñi mu àndal ñoom itam ñu ngi leen ci soññ bu baax. mu des ñi ñuy wax waa dimanche 3 nga xam ni ñoom vingt cinq mille cinq cent la ñuy joxe yaakaar naa sëñ fàllu mii ci la bokk ñoom itam ñu def ab gëstu rek ni ñuy defee gëstu nag yomb na ku ci ne da nga amoon ñu lay laaj am foo daan sëgg ci joxe sa addiya bu la ki lay laaj rawee nga dem ba ci jëwriñ mi nga xam ni fi la addiya ji ne moom dana la wax kat lii nga fi dugal lii moo la dese bu defee nga def yitte rek ci matale loolu bu nu ñëwee ci soxna yi nga xam ni ñooy waa samedi ñaari catégorie rek moo fa nekk ñuy samedi 1 ak samedi 2 bu dee samedi 1 juróom benn junni ak juróom benn téeméer mooy 33000 moom lañ war a joxe ci at mi bu dee samedi 2 juróomi junni ak téeméer cinq mille 25500 lañ war a joxe kon lijjanti ko jafewul buñ ñëwee ci suñu wéjur waa àllarba yi itam juróom benn junni ak juróom benn téeméer lañ war a joxe ba ci tuut tànk yi nga xam ne ñooy waa alxamis junni ak juróom-ñetti téeméer maanaam 9000 lañ war a joxe kon li jiitu mooy ku ci ne xam nga fi nga bokk xam nga li nga war a joxe ci at mi gëstu bi ci des nag mooy nit ñi dañ koy dimbalantee ndax mënuñoo taxaw di wax ni seexu naa war joxe na nangam dese na nangam sëñ bi diw joxe na nangam dese na nangam waaye parce que nit ki mooy yóbbu moo yóbbu ci kat mu xam ni man wax nañ ma déjà li ma war a joxe ci at mi yëpp fàttali nañ ma ko kon naa def yitte ba xam li ma ci dugal ak li ci des ndax loolu dong mooy dimbalante bi ci liggéey bi ndax fii ñu toll ci ci ci liggéey bi li wér mooy lépp lu ñu song rek incha allah rabi danañ ko daan li ci am solo nag mooy maanaam nga jàpp ni bu ñu ko doon daan bu doon téeméer lañ laaj juróom juróom ñeen fukki ya maa ko war a joxe. ndax sëriñ bi mooy ñuy boole ci ay catégorie yooyu waaye pas-pasu nit ki rek mooy àggale ci mooy àggale nit ki ci lépp amaane lii ñu lii ñu tudd ci naan kii dana joxe lii ak kee dana joxe lee boo fasee sa xol ci ne man mii kat wax dëgg yàlla war naa mën a joxe lu ëpp lii ñu may laaj jug dox ci incha allah rabbi da nga ko def ci fàttali daaw taxaw nañ ci benn jotaay ñu dajale fii ba am suñu 2 million dem ba Touba ni 3 millions lañ bëgg a jox sëriñ bi taxaw ci benn jotaay dajale fa 1 million kon loolu maanaam lu mën a nekk la bu ñu nee itam 2 millions lañ mën a jox lañ bëgg a jox sëriñ bi maanaam du loo xamante ni moom la ñu yóbbaale rek ni ndax liggéey mooy toll ci base de calcul waaye ku ci ne bu amee pas-pas ci xolam ci ne ñun ñi kat am na fu ñu eggoon daaw am nañ ko am nañ yeneen weesu ko. da nga xam li la war ci mbooloo mi muy lu néew néew yow la nga war a joxe la nga ko joxe rek ba pare nag taxaw ci lépp loo xamante ne danañ ko laajaat ngir mu taaral liggéey bi man kenn du ma ca man moo ñu boole waaye itam moo ñuy jëfal ku ci ne tey yéene ngay am rek ngir jëmmi sëriñ bi mu fekk si la ci bu dee daa wax ni maanaam boo doxee jëm ci man ma daw jëm ci yow boo dawee jëm ci man mag ma euh, ñukk wut ci la maanaam bu boobaa nag yaay xam fi nga war a taxee rek nga taxaw fan ñu ngi tubaat kàddu yi bu baax nag di jéggalu di santaat sëriñ bi bu baax ci liggéey bi muy jëwriñ ndax daanaka lii lépp moom la waaye itam moo ñu koy dimbalee ni muy rafetee ak ni ñu koy waxee ak ni muy xëy na melee na luy jaar yoon daanaka bu ci génnewoon loxoom amaana mën naa deme neneen kon ñu ngi tubaat kàddu yi bu baax di sant commission finance bi yëpp ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ni ngi ñu doon eh, indeele assemblée général bi kon foofu lañ ci yem ñu ngi sant commission yi gaaral yëpp mel na ne li mbooloo mi yittewoo woon xam yëpp ci ziar bi xam nañ ko ndax ni ñuy wax rek al maarifatu xaqun tabian lil insaan maanaam nit ku nekk da nga am droit ci am information kon lii rek moo taxoon cëriñ wax ni commission bu ci nekk comme mbooloo mi ngay liggéeyal na ñëw wax ba ñépp dégg ko euh, kon jotaay bi daa mel ni li ci des ñetti pàcc la te mooy njàngum xasida mi ci wàllu kuréel ak zikrullahi bi nga xamante ni mooy jëmmal guddig maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñu waroon a amal te ñu doxañ ko ci jotaayu tay bi muy wàccaayu ziar bi ak kàdd gu mujj nga xam ni jëriñ moo ko yëkkati kon ñu ngi dalal suñu gan yu tedd yi nga xam ni ñooy waa kër Cheikh Ababacar Lo te ñu ànd ak ñoom liggéey bi booba ba léegi muy diggante bu yàgg te rafet mel ni noonu ñu ko sàkkoo woon ci ñoom it defee nañ ko noonu eh, commission culture ñoo sàkkoon ci ñoom ñu ñëw ànd ak ñun maanaam baatu tudd yàlla wi subhaanahu wa taala noonu ñu ko defee woon ci bi ñuy waajal cant gi rek noonu lañ ñëwewaat kon ñu ngi leen di nuyu baax tey eh, bëgg ci ñoom di leen di wax dëgg yàlla di leen wettalikoo ci taalibe ndax ku leen xam xam ne jëmmal nañ li Cheikh Ibra doon jàngale te doon doon ko jëf te mu jëlee ko ci Sëñ Tuubaa te yàlla ak taalibe moom ku dugg yoon di nga xam ne am na fa liñ leen di sant it mooy jaxasoo gi ñuy jaxasoo ak ñun faaw ñu wàll ñu seen jikko waaw suñ tax dafa wax ni bu la jikkoy nit yéemee roy ko rek bu yàggee nga mel ni moom kon ñu ngi leen sant baax te li leen dalal kon jox sëñ Alioune ñu ñëw ci njàngum xaside yi bu noppee rek ñuy jox waa سفينة الأمان بلوية بسم الله sëriñ Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na ko fi suñu borom subhanahu wa yàggal lool te ma ànd ak wér mboolem lu mu naal ngir liggéeyal ko sëriñ Touba yàlla na ko suñu borom defal tawfiq ba mu jëfe ko na njort ñu dellu di santaat yàlla bu baax ci tawfiq nga xam ni. defal nañu ko te ma bokk ca tooguñu toogoon nasoon ni bis bii bu agsee dinañ ko tërale nii nañ ko xalaate woon sun borom dimbali ñu bañ jëfe ko noo xam ni kawe na njort kon li nu war ñun mooy sant li ñu war mooy gërëm waaye li ñu war mooy ñaan daa mel ne ku yëkkati kàddu rekk am na foo jaarale sa kàddu te mooy ñaan ci barkeb sëriñ Touba li ñu tax a daje fii tey muy waaj ngir siyaare ji Touba waaj ngir siyaare ji Cheikh Mamadul Muntaxa jébbal ko suñu liggéey nga yëkkati kàddu xamle bu baax. sa yéene ci loolu te loolu buñ ko dajalee lépp mooy yéene mbooloo mi rek loolu nag ku ne xam na ni daa am lu ci feeñ ren te mooy tudde gi ñu ko tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall lampi Babil Mouridine wal Mouridaat loola moom tawféex la ju rëy joo xam ni ku ne xam na ko tawféex feeñaat ci it muy ren day mooy suñu ñaar fukkeelu ziyaar ak juróom-ñaar moo dëppoo it tasawur subaan am fanweeri at ak ñett mu mel ne ñu yëkkati kàddu di waxtaan muy soxna Fall ku ne xam na ni ki doon waxtaane mooy soxna jaaratullahi Mariama Bousso ay atam ci zahir nekkoon fanweer ak ñett ka muy Serigne Ousmane Diop doon waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall te ku ne xam na ne dégg na ci biir waxam mu ni digg bi muy wàcc liggéey mi ngi tollu ci ñetti at la ko ku tedd ki jiitoo tuuba kon mel na ni ci tënk bu gàtt. tawfeex yooyu yëpp daa daje ci biir ba ca des ku ne xam na ni sëriñ Fàllu Mbàkke mi nga xam ni tey tasawdu subaan da koo bëgg a ñibbili tasawdu subaan da koo bëgg a dëkkali tasawdu subaan da ko bëgg a ji ca dëkkam bu tedd boobu mooy ndindi ku ne xam na ni moom la maam Cheikh waxoon ni ko gan gi bu ma fàtte gan googu day mooy sëriñ fallu kon tey bu ñu dajee ci benn jataay yooyu yëpp feeñ ci soxna jaara feeñ ci biir maam Cheikh Ibrahima feeñ ci biir sëriñ Fallu feeñ ci biir kon nag danañ am sañ-sañ danañ am fit ci fàttaliku bu baax sunu jàmbaar ja muy sëriñ Malick Anne daada wax ni nit du wàcc yàlla des nit du wàcc yàlla des baat boobu rekk man mën naa cee tënk sama kàddu te yemale ko ci ndax sëñ Ousmane wax na ni sànq ni nañ xalaate woon ñoom ñi jiite liggéey bi jortu nañ ni defe nañ ko niñ ko bëggee woon loola moom dañ ca am sax lu kawe njort ci jëfin bi ni mu selle ak ni ma pastéefoo loolu nag dañ ci sant yàlla waaye santaat leen ci bu baax mbooleem ko bokk tasaw du subaan tàmbalee ko ci sunu waajur yi toog muy kuréelu àllarba ci njiital soxna Ndak Njaay yàlla na ko yàlla yàggal sunu kanam te ma ànd ak wér mag ñaa ngi ni kenn desul daayira dimaas ci catégorie yëpp samedi ci catégorie yëpp alximis ñëpp ñëw nañ kon nag ñu ngi leen di sant bu baax daa mel ne nag ci waxtaan yi ñu fi dégg léegi fa kullu man saala lii fa liy jawaab xabla wala tujaadilu ahlul kitaab sëriñ bi daa wax ni wax ju lu mu bari bari ak lu mu gudd gudd ak lu mu gàtt gàtt ngeen bàyyi di tudd yàlla moo gën ci yéen sëñ bi wax na ko fii léegi ku tedd ki wax ko ci masaaliku jinaan ab taalibe lu mu jàpp ni su ko defee am ci ngërëmal yàlla na jàpp ni la ca gën a gaaw gën ko ko mën a yombalal mooy tudd turu yàlla kon bu ñu toogee fii ngir waaj jébbali sunub liggéey sëriñ Muntaxa yàlla na fi àgg te ànd ak wér ñu toog kenn ci jàmbaaram yi muy Serigne Cheikh Ababacar Lo nga xam ni ku ne xam na ni ëtt bii moom miin na lool waxtaane jëmb ju tedd jooju waaye ku ne miin na it njabootam ci biir daara ji ñu toll ci ñu war ñoo tëjal liggéey bi tëjil ñu liggéey bi mooy tëjal ñu waajtaayu ziyaar waaye tijjil ñu yoonu fas yéene siyaari ji kon dafa mel ni dañuy daane suñu kàddu ci dellu leen a nuyu ñoom ñi nga xam ni ñooy safiinatul amaan te yaakaar naa ni safinatul amaan day ku ñu teew ci sa bët mbooloo mu ñu teew mooy gaal goo xam ni bato boo xam ni boo ca duggee rekk àjjana ngay teere ji noonu la ko ci Ahmadul Xadim tudde kon ñi ngi nuyu bu baax sëriñ Amdi Moustapha Lo mi nga xam ni tey jii moo toog di sëriñ Cheikh Ababacar Lo yàlla na ko yàlla yàgg sunu kanam te mu ànd ak wér mel na ni njabootam ñu bari teew nañ te ku teew rek ci ndigalam nga teew ku teew rekk ci kàddoom nga teew ku jëf rekk ci ndigalam nga ko jëfe sëriñ Saalihu Lo mi ngi teew ci jataay bi sëriñ Cheikh Ibrahima Fall Lo teew na sëriñ Cheikh teew na sëriñ Cheikh Lo Wadd teew na ànd ak mbokki taalibe bari waaye ñu ànd ak nag njiitul daayira bi muy sëriñ Moustapha Guèye ak sëriñ Mouhamadul Fadilu liggéey ànd ak sëriñ Saalihu Lo ak ñi nga xam ni ñi ngi toog nii sama loxo ndeyjoor di délégation boobu mag ak ñi nga xam ni ñëwoon nañ ànd ak mbokki taalibe gunge leen te xëy na liggéey bi ak yi ñu yëngu tax ñu delluwaat kon nag sëriñ fallu mbir maa ngi noonu mooy liñ soxla ci jataay bi rek mooy li ñu daan defal mooy ab jataay day bu ca lenn luy nuru maam Cheikh Ibrahima Fall feeñee sant rek a ca war ak rafet njort ndax siyaar bii ren maam Cheikh Ibrahima Fall la ko tasawdu suban tudde ñu ngi siyaar xalifaam bu baax tey ñaan mu yàgg lool ci sunu kanam te ànd ak wér duñu mën a daane sunu kàddu nag te fàttalikuñu sunu jàmbaar ju tedd ji muy Serigne Saliou Mbacké di ñaan rek yal na yàlla taas ci barkeem Serigne Saliou yal na yàlla dolli leeram ndax mooy bunt bi ñu marale ak Serigne Touba Khadim Rasoul bañ nañ ko ba sax ñi nga xam ne ñoo ma gën a jekku kàddu gën maa xam dañuy wax ni tasawur subaan bu Serigne Saliou Mbacké donte fu tasawur chebaan sosoo rek sëriñ saaliwu la ndax sëriñ saaliwu mooy sëriñ tubaa lin qaadatil ujuuru wal masaalixu bi tey wal jas bi wa indi saalihu Cheikh Ahmadou Khadim ko bind kon fu tasawur chebaan nekk ak loo sori sori ak loo jege jege ak lu yëngu ba tëdd rek njabootu sëriñ saaliwu la waaye sëriñ saaliwu mbàkke moomu day ku ne xam na ni tey te sawdu subaan bu toogee am xalaat ba ni dañoo fas yéene siyaara ji sëriñ muntaxa yëkkati àddee joo xam ni xeeb nañ ko lool lool nag ba xamuñu nen lu ñuy def ba ñimeeti ko tudd ndax dañoo tàmbali woon ci lim bu ñu nawoon muy fukki ju nekk benn mu réyoon lool ci ñun ndax ki xam démb xamoon fa mu jóge loola dina xam li may wax waaye ñu dox diir yàlla barkeel ñaanu sëñ Saaliw ñu ci dox ba doxe ci nii ko sëñ Ousmane waxe woon wala ni ko sëñ Modou sa waxe woon ku ne xam ne daaw bi ñu jógee fii daanaka suñu ñaari million su matee la ca tege woon bariwul waaye ba ñu àggee ci fanweeri minit yu tegal tuuti tasawdu subaan ak mbokki taalibe ya dajale waat nañ ci àddiye lu toll ci million tegaat ko ci muy ñetti million fan yëpp nag xel yaa ngi koy xalaat ñu ne xëy na da koy wax léegi mën naa am du ko wax mën naa am dina ko wax loolu sëñ Moustapha Gueye daan wax rek ñu wax loolu rek wallaahu a'lam yàlla rek xam nañ ñaan rek àgg ci ak jàmm waaye ñi xam doxinu murid dëgg-dëgg waaj nan moom ñi xam yoonu mu ni dëgg-dëgg ñi xam ki ñu tudde bis yi waaj nan léegi rek sëriñ Birane saw yàlla na ko yàlla yokk wér dama jox benn dollu xasida ma xool ko waññi ko waññiwaat ko muy fukki xasida ak benn ma ne ah fukki xasida ak benn fukki junne ak benn xaw naa nuróo de te ñu njëkk a tàmbali yokk seen àddiye dama leen 2 millions yi moom waxaalewu ma ko moom ma nga tege ne moom mbokki taalibe yi dem ak ñu fomm ak sëñ bi nekk poroxaan lépp sëñ Muntaxa dina jot yi deux millions bu soobee yàlla lañuy wax kay mooy luñ cay teg ñu bëgg nag ku nekk waaj daayira ba ñoom teel nañoo xam seen bopp ba ña nga dajale seen enveloppe boo xam ne nii fukki junne cay fukki junne fukki junne ak benn cay nekk ngir buñ nee yokk rek ñu la tàbbal li ma waxoon sëñ Modou Sow ci basan gi léegi rek nañ leen ñaanal rek biñ ne xéewal yi dañ koo jaayante man ne ko nañ leen ñaanal rek man daal loolu mu laa gëm ci kura àdduna te ba faw it moom laay gëm moom kenn mën tax ba duma ko gëm moom moom ñu dem rek ba ñu ne xéewal yi ba siiru baa ni lépp joxe naa ko ndax mi ngi ci xol bi moom barke Sëñ Tuubaa waaw moom mën naa ko seereel moom mu ngi ci xol bi bu baax kon loolu la ñuy ñaanal ñëpp ñu dem a dem ba tey wax ji ñuy wax su ma koy bëgg a wax ñu ñëw nii ma noppil nañ defan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy wax naan ala wa qawlu zuur ala wa shahaadatu zuur yonent bi naan xamu leen ni bokk na ci li gën a yéeme gën a yées mooy seede lu dul dëgg di ko wax ba tax saxaaba yi naan laytahu shakata ay waay man ngaa noppi xam na ni li baaxul xam nañ li daganul di ko ñaan mu noppi ñu ni rek dañuy ñaan rek ñuy wax di wax ba bu ma yëkkatee kàddu rek sëñ Fall di ma jëwri noppil addee ji mat na te mi yàggatul nag wallahi yàggatul mi ngi sunu kanam amin ya rabbal alamin kon ñun murid lan dañuy daanu rek di wax sëñ Njaga waajal dañoo bëgg balaa lenn xew fukki junni ak benn yi maam Cheikh Ibrahima Fall di jébbal sëñ Mountakha mat sëkk moom la njëkk ci liggéey bi soxna mi fay ñu ngi leen di jéggulu seen fukki junni ak benn maam jaaratullaahi waaye dañoo bëggoon fii ci basang gi sëñ Mor Sow nan la ko wàññil nañu wàññi fukki junne ak benn ñëpp yëg ni addiyee maam Cheikh Ibrahima Fall moo njëkk ci liggéey bi ren fukki junne ak benn loolu laa bëgg bala maa tegaat genn kàddu bala maa ci tegaat dara mu saw taxaw fii ni fukki junne ak benn yi maam Cheikh Ibrahima Fall def ci liggéey sëñ Tuubaa mat na sëkk sëñ bi day Ousmane Fall am na nu koy waxee ni sëñ bi nee na ngay laaj lu ñu xam te def ko fu ñu xam nañu laaj <laughs> waaw noonu laa sëñ Moussa waaw si Ousmane moom damay déglu ay waxam bu baax ba mu waxee sëñ gànna Messere nee na daal lekk loo xamul wóorul ci laa ko bàyyi ba léegi loo mën a taajal bu ma xamul lu mu doon man la usmaan Fall nee na Gana Messere nee na nit du lekk lu mu xamul waaw lii it moom noonu la ko waxee rek ñu jox ko trésor daayira bi kon sëriñ ni nga daan denc ba daaw at yëpp buñ la fëggee muy guddi muy bëccëg nga ñëw waññi ni yaa koy defaral sa bopp daal ni millions yi mu jëm ci sëñ bi lii moo jëm fi kon bismillah kon li ci dese xanaa mën nañ ma koo jox weccit bi xaw ma nu mu toll na waaye sëñ Daawda joxal ma ko Moustapha Guèye mu tàbbalal ma ko ci keesu looyeen gi sawenul amaan dama ko ci tàbbalal rek moom ñaan ci barke Serigne Touba ak Cheikh ba maam Cheikh Ibrahima Fall boobu maa ngi tuub ci baat boobu nag sëñ bi ñi ma ko sañ a wax ay waaye nañ may dimbali di bàyyi wax di wax maam Cheikh Ibrahima Fall ko sañ a wax na ñi ma ko sañ a wax laa wax de buñ ma ci dimbalee dina baax lool waaw da da mën naa nekk na xëy na waaye ñi ma ko sañ a wax ay waay nañu wax maam Cheikh Ibrahima Fall luñ ko gën a darajaal rek yaakaar naa sëñ Tuubaa li muy tudd yonte bi dana bay lool yaa sayyidi yaa rasulallahi yaa xarat yi di ko di ko tudd ne waaye mu jaar ci muhammadun xanaa bu ko waxee mu ne muhammadun xayru man yam si ala qadamin noonu rek la koy taggee ñu darajaal jëmm ju tedd ji baax muy maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di ko wax rek mel ne sanwaaj yi di ko tuddee noonu mu xaw a xaw a baax na nag waaye daa am lu ko gën waaw ma koy ñaan rek maam Cheikh Ibrahima Fall ci tasawdu subaan ñi ma ko ñi sañ a wax ci biir nag ñu dimbali ma ci loolu jëf sëriñ Saalihu ñoo ngi dellu sant bu baax suñu xol sedd na guy yaakaar naa ni ku fi teew tey bu jëlee kàddu baat boobu mën naa jib sunu yaakaar it dal na xam naa kay dañuy ñaan rekk ci barkeb Sëriñ Tubaa barke maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ni tey moo a jataay bii yàlla na yàlla guddal seen fan lool te ma ànd ak wér yàlla na yàlla yaatal seen wërsëg te barkeel ko ba lépp lu ngeen sémb ngir liggéeyal ko Serigne Touba ngeen mën caa jëf ba jëf ci lu kawe njort yépp daa mel ne kàddu gi maa nañ ko bañuy a yëkkatiwaat ndax sëriñ Moustapha mi ñu koy bëgg a jox cër bu ñu am ci tasawdu subaan am na ko ci walla am na bu ko ëpp te rafetal ko lool nag waaye ñuy ñaan rekk te jéggulu ñépp bala ñoo jébbal kàddu gi sëñ Moustapha ñu ñaanal sunu jàmbaar ji nga xam ni mooy sëñ Alioune Diouf mu sëriñ Saaliw bi sooda duggee léegi suñu xel yépp daa dem ci moom ndax nii la ko baaxoo defee te yàgg nañ ko wax fii ngeen seede bu ñu masaan liggéey sëñ Tuubaa liggéey bi mel nii rawatina guddi àjjuma da ngay jékki-jékki rek seen si yàlla mu bor loxo yi ñëw dugg toog ni dama dégg rek njàng mi mu neex ma ñëw wettil leen ànd nañ ci liggéey bi loolu nag dakkul ndax sëriñ fàlloo ngi nii ci biir soxna maam say ngi nii ci daara ji te ni ma ko waxee keroog rekk fu ñu ko yóbbu ku ñu xam dañ naan sa wayjur ni sëñ Alioune juuf nga sëñ saaliw foo jànge moom tumuraanke woo ko fu ñu yaakaar ci yow tumuraanke woo ko waaye kóllëre gi doxante diggante sëñ Alioune juuf ak tasawudu subaan bu nee bu may tasawudu subaan dugg naa ci biir moom lañuy sàmm kon tàbbik soxna sooda ci jéegoom yi léegi alhamdulilah rabbi alamin ndax fàttaliwaat nañu baax euh, sëñ Alioune Diouf mu sëñ Saliou nga xam ni ku ne xam na ni ñaar fukki at ak juróom benn yoo xam ni mën nañoo wax ni fàttaliku ci at mu wute siyaar bi ànd ak ñun ba ci siyaar bi mujj jooy na ko jooy yu mitti ne ma xam nga ni dem naa Màkka de ma ne ko waaw ndax ña njëkk yëg demu màkkam ci laa bokk barki dem laa ko bu ñu nettali su ma amee ku ma ko njëkkee sooda mi lay doon te sëñ àlla ma ko wax ndax kero ba muy dem dani ma damay waajoonu penk waaye su ma sañoon fa ma daan taxaw di julli yaa fay taxaw muy it bi ma firdul nekk su ma sañoon yaa may wutu foofa ndax rek jàpp gu ma jàppoon ngir jëmi boppam ji kon sooda ñu ngi lay nuyu baax di rafetlu bu baax a baax nag sa doxin ak sa jàpp goo xam ne jàpp nga ko ci mbooloo mi yóbbanti bi nga indi agsi na te noonu nga ko baaxoo defee nag lépp luy teraanga bu agee sa loxo jotu nga ni suñ jëmm yu xeebu yi rek ci yàlla si xa addee fee nga xam ni ay weer tasawul subaan muy daara ji mën na ci jëfandiku kon nag yàlla yàlla guddal sa fan te ma ànd ak wér kon ñuy ñaan kenn ku fi teew ku nekk nga mus seytaane julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàng faatiha xul walla fukki yoon ak benn ñaan yàlla na ko sun boom nangu jotali yoon bi sëriñ Alioune Diouf mu sëriñ Saalix Mbàkke tey jii nag ziyaara yooya barkeel ba ñu ñii ci seen ginnaaw di topp ci yooyee jéego lu rëy na nag ci lislaam bu ko nit defaloon sax moroomum jullitam dong rek rëy na daraja rawatina nag mu defal ko Sëriñ Tuubaa dugalaale ci itam na xitma waajtaay wii ñu ko defal itam dafa am cëslaay ci mbooleem lu islaam di waajal istiadaat islaam da koo bàyyi xel ndax boo gisee buñ jubee weeru koor baraxlu nit ñi di def tàggatu riyaadiya di barkeelu fukki fan yaak juróom ne su saabaan tàmbali di fay boru koor tàmbali eh, ñi nga xam sax dañoo sàgganoon tàmbalee fëggaat seen yére yi nga xam ne yére yu suturlawu la ngir fas yéene waajal weer koor su ko defee denc yéen yére yi nga xam ni tànneeful woon kenn ku nekk itam làmb kurusam euh, jënd si jaada gu bees loolu wàccaay la ni nga gisee fa man farada fihi xaj xajja fala rafasa wala fusuxa wala jiddaale fil waaj a dem aj màkk di fay ay borom di baalu aq di nuyoo di tàggoo euh, loola itam isaan daal islaam da koo bàyyi xel waaye kon kuy waaj a siyaare kuy waaj a ji itam kon mu yell nga defal ko wàccaay yu mel nii nii ngeen ci uh, dugalee itam cërub Cheikh Ibra uh, nun njabootu Cheikh Baba Coullo noo ngi ciy sant ndax gànjool la nekkoon ndigalal Cheikh Ibra ko indi fii Serigne Fall suuf sii di Thiès da ko doon xëccoog ay noon ay noonu yàlla yoo xam ni danoo aaroon suuf si Thiès jànqeen la doon ay séeréer su ñàng nekkoon fi yu am ay mbir yu am ay xuraafaat mu yebal fi Cheikh Babacar Lo ndax booba xam na ni àlliwoom diis na xalimaam ñëw na boole kook sëñ Saliou Fall ñu ñëw fi xeex bu metti la woon loolu baaxu duñ ko net net li ci mbooloo waaye noog séeréer si noog séeréer si ba Cees ni mel nii mu mel ndax suñ bàyyi woon rek nee mu tàmbalee ca côté Caali ak jaxaaw mel ko noonu kon day agsi fii te ndekete penku bii suñu borom da koo dencaloon nitu yàlla waaye Cheikh Babacar loo leen dogale mook sëñ Saaliw faal ba ak si wunu loola moo ko fi moo ko fi indi tubaarkallaahu nga xam ni daara ji ñu fi njëkk nekk mooy daara yi ndey soxna maram cuun mi maam yi sëriñ Saaliw Lo mii fa lañ ko denc mu nekkoon daara ju tàng joo xam si seen digganteeg séeréer si nga xam si noonu la woon waaye ñoog ñoom ñoom ba tey pàkk bi mel nii mu mel kon fii pàkkub Cheikh Ibra la képp ku ko déggee noonu lépp lu muy def rek dana ci génne ab ciram kon noo ngi sant Tazawudu Subaan làmp bu leer la liggéey bi mu su koo xam mukk ndax Sëñ Tuubaa kulliyati mujizatun ta aqarat wa xayra xayraatin la dayka doqiraat doqiraat googoo tax boo sànnee bët doo mën a xam waaye seetlul ndaw loo xam ni boo ko bàyyi woon àddina këf ko nga mujj koo jël def ko waayu Sëriñ Tuubaa yoo xam ne day jàng xaside yi guddi ak bëccëg day jàng alxuraan day teew ci majaalisu zikri ba seytaane naagu ci moom ba wiccax loxoom génne ko ci boobu xale lool dong doyoon na résultat ci àddina waaye tey tato du subaan daa tàmbuleeg nun nun fekke nan door gi ñoom ñu ñu ñu nag ñoom Seydina Ali Diop si si Ousmane daanañu fëgg xale yi yee leen ngir ñu jug kuréel nga xam ne maam bu ñëwee ci cant yi njëkk dañuy nelaw ba dañuy ni fëgg yee leen ngir ñu mën a jug kuréel muy doxee noonu doxee noonu tey ba nga xam ne ay kuréelu kuréel la fi nekk loolu liggéey bu rëy la bu ko suñu borom nanguwul woon du demee noonu kon tey itam masi su la dégg dara loo xam ni mépp mbooloo mu jug di dox rek bis na ñëw àddina dañ ko ngir xool ba xam keneen yi mu samp dëgër naam déet waaye mbooloo mii suñu borom musal na ko ci lool ay tentative ay yoon ay ay jéem waaye sëñ saaliwu du jëmbat fu amul yaakaar aw jiwoom kon noo ngi sant ci loolu wax na xel na seen xel yi daal bu baax safoo gi day gën a yaatu seenub liggéey dem na fu ne ay ambassadeur ngeen fi mu ne nii waaye nag loolu yëpp duñ fàtte ñaan surtout bu nekkee ci mujjug liggéey nga xam ni fa inna xusnal fiala fi ikmaalihi sëñ bi dañu woon wajtahidan na wajtahidan na dahra wajtahidan na baada fi isaalihi fa inna xusnal fiala fi ikmaalihi kon ci mujj gi nag la ñaan ci darajey sëñ bi mbooleem njabootu Tazawudu Subaan ñi ciy dund na sunu borom njëkk a yàggal seenu dund kum ci fekkoon sax ci ji jamono ci darajey Cheikh Ibra nga xam ne yor na tawat joo xam ne tawati biir la ju mënta waxtaane ñooñu naan ci darajey Cheikh Ibra ak jàmbaaram ju mag ja Cheikh Babacar Lo sunu borom saafara ko nottil leen nag ci wërsëg lu yaatoo yaatu maa ngi wax sëñ Moodu léegi bi ñuy wax ci wàllu addee ji ma ne ko dañuy ñaan saa suñu dëgmalitee kenn dong di joxe ay millions nee naa ko nag yaa ma gën a jege yow suñ muudu ñaanal laa ko waaye bu mu fi yam na na na wër ci ñëpp ñu leen koy ñaanal. ñaan itam tànk yi nga xam ne ñu ngi ci biir daara ji ñëpp yàlla na suñu borom teg leen loxo yàlla bu àddina ak seytaane am ci ñoom wàll yàlla na doon ay kenoy diine suñu borom barke leen góor ñeeg jigéen ñi sàmmu leen mbooleem luy fakkatal mbooloo suñu boroom galfal ko. di sant nag bu baax tey gërëm di jéggulu kàddu gi xam naa ne vingt heures yi suñu Fall doon naan vingt heures et demi la ñuy ñaan mujj nañ ko weesu waaye ndekete waxtu wii ñu koy tëje nii la yàlla tànnoon doomu aadama day sabablu rek eh, kon ndekete suñu borom nii la ko bëggee woon ñoo ngi naan yàlla nañ ko def at yu bare bare bare ziyaara bi itam yàlla na sunu borom jël salaamatu lalee ko yoon wi ak waajtaay wi dem gi dikk gi ak mbooleem jëf yi te mbooleem naale yi tasawdu subaan yëpp itam yàlla na sont coleet ñëpp fekke ci ginnaaw sunu njiit lii di sëñ Boubacar Diop ak mboolem ñun ko bokkal xam naa suma limee tur rek dana kii waaye Seydina Ousmane faaw ma tudd ko ci moom day sama jëwriñ joo xam ne daf may dimbali eh, jàpp ci sama loxo di ma ñoddi kon kaddu yooyu ñu ngi ko doon wax ci turu sëñ Saliou Lo mi nga xam ne moo noote jotaay bi ci turu ay kilifaam ak mboolem njabootu Cheikh Babacar Lo gi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sant nañ baax kon na ñëpp maase tàll seen loxo te wax amin Serigne Saliou ñaan bismillah amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin Amin.